Euh, léegi nag gars dégg ngeen ko jëru sama koy répété ndax dugal naa vidéo mais dinaa ko waxaat ci live ndax am na ñoo xam ne ay dof lañu duñ déglu vidéo bu baax léegi nag kaa bi kaa bi ci boppam du aadama moo bari ay version de déedéet kaa bee ay version ndax ku ñu interrogé boo waxee lii tey bu subaa nga wax lee ñëpp a jaxasoo seen xel yi daa jaxasoo police daa jaxasoo procureur daa jaxasoo commandant daa jaxasoo journaliste yi danoo jaxasoo yéen ci seen jëmmi bopp da ngeen a jaxasoo kaa bee ay version du Adama moo bari ay version wala ma ngoonee bëri ay version déedéet kaa bi moo bari ay version ci ñoom maanaam kaa bee tëddee noonu kaabi moo bëri ay version su ngeen déggee cas bi nit di wax waxaat leneen nit di wax waxaat leneen bu yàggee sax da ngeen di jàpp rek Adama mooy duul wala Ngoone Saliw mooy duul wala Fall Njaga mooy duul wala ay Aydara mooy duul déedéet ku nekk mën nga am tuuti information parce que ñoom ñi nu jàpp ñooy réeral Sénégalais yi ndax ku nekk ak la ngay wax nii la deme moo tax ñun ñuy indi li ñu jot man lépp lu jot ci enquêteurs yi direct dan may woo dama ne la am na ñuy topp enquête bi nekk nekk euh, police Sénégal am na ñu ñuy waxtaanal ñoo ñu yëkkati sama téléphone woo ma ma jot information man a jàllale nii la cas bi demee mais du ma tudd turu kenn ndax loolu may tere waaw tant que tudduma tur mi ngi baax cas bi moo bari ay version waaw léegi nabu lay ba nu ko dégloo nabu ma répété waat ko nabu avoué na yóbbu nañ ko camp pénal cinq boole koog dix jigéen yoo xam ne ñii dëxin la nekk ñii maafe lani ñuy añe ñii nag dañuy mujj dañuy danoo tëdd ci tàpp yi ba nuroog garabu darkase wat ko nel nag dindi pirig ba ak ay lamam ak ay weewam boole koog dix personnes ay jeeg borom taat yoo xam ne bu la doxatee ngaay lu mu guddi guddi dana la fekk siin yaay gën a gaaw avion Aïssatou Bekk merci beaucoup léegi Nabou Leye moom mooy nettali ci lam moom mooy nettali ci lama ñu enquêteurs yi bëgguma ngeen di wax naan Adama moo wax moo waxaat man ngeen di dégg mais la ma jëlee ci enquêteurs yi moom laa leen di wax barki Serigne Babacar Sy Malick ak ma suul sama yaay selbe du ma leen wax loo xamante ni jógewul ci enquêteurs yi ñoom ñoo yor seen i version yu bëri mais lépp lu ma leen wax nit ko wax man du ma waxantu lu ma leen wax xam naa ko Nabou lay mooy wax nee na moom avoué na ne takk na ci mbir mi ñu laaj ko ana lan moo tax lu waral mobile de crime bi lan moo tax ñu rey Abdou asis Dabala Nabou ne dafa nekkoon ci lu ma neexul loo xam ne sama xarit la ma bëgg ko ñu yàgg neexuma ma bëggoon ko maanaam mu dakk ci moom ma woowoon as jaw pour mu xoqatal ko ñu laaj Nabou kaa lan la Aziz def lan moo la neexul ci moom mu ne dafa nekkoon ci affaire góor jigéen nii la ko waxee nabu mooy wax de ak enquêteurs yi man li may wax dama bëgg ngeen xam ne naboo koy wax nabu nee ba may woo Assane Diaw woowuma ko woon sax pour affaire rey mais pour mu xoqatal ko tiital ko Assane Diaw ci boppam njëkk naa daje ak Abdou Aziz Dabala Icotaf ne Aziz dama laa soxla damaa bëgg ñu waxtaan mais mënuñu ko waxtaanee fii ndax mën nañ dem sa kër Aziz bañ loolu ca noona na bu nee na ca noona ñu organiser ay cant yu nday njaay tey seen jiite na booy wax nee na ma woo Abdou Aziz Dabala dafa bañoon ne du ñëw ma woo ko forcé ko ba mu ñëw ba Aziz ñëwee li nu ko doon tooñe mooy borom ñaari tur góor jigéen bi doomu raam bi yow góor jigéen nga dañ lay juutal dañ lay nangam xeex ba démarré na booy nettali xeex ba démarré na bu nee na ba xeex ba démarré ba takkar naase maa jël Abdou Aziz Dabala dugal ko sama oto mais yóbbuwuma ko gàllem nag police ne ko noo ko def mu ne Icotaf laa ko wàccee na booy wax Icotaf laa ko wàccee ba ma ko wàccee Ecotaaf man na bu lay maa jël sama téléphone woo ña mu jotee loon ne ko Aziz jël na taxi ba ma nga noonu jëm këram ñoom ñu départ jëm kër Aziz man ma taal sama oto taxaw marché Xelkom ñii la kaa bi deme nee na ba nu dugg na booy wax de nee na ba nu dugg see ci biir kër gi toog nan ñu waxtaan yaa ngi dégg def seeni affaire ak yooyu ba xulloo am xeex am nettaliwul nag action kër gi ni mu demee nu ngeen def ba rey ndax dangeen a jàppante mais ba mu jëlee ba nu jëlee paaka bi di menacer Aziz Nabou nee na Waly moo ubbi bunt bi tombe ci ba mu tombee yaa ngi dégg gis ne faat nañu Aziz mu reyanteeg ñoom nee na taabul bi nekk ci kër gi te toj waalee ko toj ak mooy wax nabu nee na waali moo toj taabul vitre boobu noonu ngeen gis ndax danoon reyanteeg ñoom danoon reyanteeg ñoom di joteeg ñoom nee na waale leen gënoon sonal Aziz sax sonalu leen mais nee na waali moo leen gënoon a sonal ndax danoon bañante ak ñoom moom mooy nettali léegi nag li nabu wax lépp nii la demee man maa ci indi sama analyse bopp ndax mbir mi nii la demee wala nabu moom mooy duul parce que moom mooy nettali version yu bokkul bu ngeen gisee ñu téye ko dafa mën a duul parce que man mënumaa comprendre Abdou Aziz Dabala joteeg ay nit ca àll ba ca àll ba Aziz di leen ubbil seen appartement te nga xulloo ak ñoom loolu moom ma njëkk a def kaa nooy xulloo ak nit di ubbi appartement bi. nooy xulooweeg nit nit ku jógee fële nga ubbi sa appartement xam ngeen lan la man c'est logique waaw gars yi neen c'est logique ñi ne c'est pas man damaa nettali li Nabou lay wax enquêteurs yi man ma wax leen sama version man dama ne du ma xulloog nit ma xam ne kii damay rey mu ñëw ci man may ubbi sama appartement pour ñoom ñu dugg toog di négocier man du ma def loolu Aziz mën na koo def sama jàngatu bopp laay jàngat man duma def loolu léegi li ma jàpp lu ñu war a génnee xamul nu muy def ñu ne dinañ taxal Abdou Aziz Dabala ne góor jigéen na lii laa gis danoo jàpp ne bu ñu wax ah gaa yi dinañ ci mën a jàpp wala dinañ ci sukkandiku moo tax ñu basé wu ci wàllum góor jigéen mais man gaw ma ne Abdou Aziz Dabala góor jigéen na man gaw ma ko man aadama beneen bi ci tegu mooy nabu Abdou Aziz dabalaa bu nekkee góor jigéen mu nekk ci loo xamante ni neexu la nee nga buggoo ko moo tax nga boole kook Assane Diaw te Assane moo jiite gang de mafia bi moo yore gang bi man jàpp naa ne bu fekkee Aziz sa xarit la di góor jigéen nekk ci lu neexul xam nga yaayam da ngay dégganteeg moom nabu xam nga papaam dangay ngay dégganteeg moom nabu xam nga frèram da ngay dégganteeg moom xam nga sëram Aida da ngay dégganteeg moom loola tee nga sol sa dàll yii dem ba ca Aida dem ba ca Ayda wala yaayam wala magam ju góor toog boole leen ñoom ñëpp waxtaan ñoom ne leen kat Aziz ci lii la nekk ak lii ak lii ndax mën ngeen a wax ak moom ndax loolu neexuma ñëwoo woo Aziz Dabala ne ko na bu nee na léegi lii ndax noonu la deme ñu yedd ko en public rey bañ ci am ci sama jàngatu bopp man samay xalaat laay defat man samay jàngatu bopp ku ne wax waxal lu la neex lii la nettali man may tontu. man moom sama xarit bu nekkee ci loo xam ne nii neexuma déedéet du ma jéem a liggante pour ñu faat ko wala ñu rey ko mukk ci àdduna bi dama koy bàyyi bu ma ko mënee bàyyi su ma ko mënee wax yaayam pour mu génn ci lii ma wax ko yaayam ak papaam mais reyal leen ma ko sama xarit la ndax li mu nekk neexuma yàlla tere na bu loolu man du ko def parce que yow yaa ngi nekk ci loo xam ne nii mën naa am neexul yàlla man mii di saaga ndey tey jii di wax lu ñaaw nee na damay xawi sutura baaxuma damay sosal ay nit di yàq ay gon pourtant gën naa ay nit ñu bari Sénégal parce que dangay ngay gis imam boo xam ne day dem jàkka jàng alquran damay ñëw ci kot su Bakary kot su Bakary dafa wax ne yor na ay video la motif ay mbër man nag du ma génnee vidéo mais dinaa leen am lu ma leen wax mbër ak ay promoteur yuy kattante ay mbër ak ay promoteur yuy kattante ak ay journaliste ñuy kattante ak mbër yoo xam ne dañoo jël jabaru jàmmoor asafurlaa geru jàmmoor di ko kat déglu leen ma bu baax vidéo yi mu yore moom laa leen di junj moom moom Bakary ay mbër ay mbër làmb ñoom ñoo nekk ci biir ay mbër làmb yiy kattante promoteurs yi di kattante jigéen ñi di kattante ak ay journalistes yu nekk ci biir di kattante ak ay garu mbër yoo xam ne gaa yi ràññee na leen beneen mbër wiiri ci ginnaaw di ko kat def naa appel 3 ak Bakary Bousse Ketchup Bécaye Mbaye woote na ñaan njekk Bécaye mbay woote na ñaan njekk Bécaye ci boppam baay Ndiaye woote na ñaan njekk Baye ci boppam Aziz Ndiaye woote na ñaan njekk ñii laa xam ci ñu woote man bu ma wax damay préciser damay tudd ay tur parce que li may wax dama koo xam ku ragal rek mooy toog di junj naan mama naan yëg papa naan nanga mag papa naan day déedéet Bécaye Mbaye woote na man appel laa nekkoon ak Bakary ñaan njëkk Boucher Ketchup mi woon ci biir appel bi Baye Ndiaye woote na Aziz Ndiaye woote na ñaan njëkk Bakary du Baye njaay nag du Aziz Ndiaye du Baye njaay du Aziz Ndiaye ñooñu nekkuñu ci mais woote na di ñaan njekk Bécaye mbay ci boppam woote na di ñaan njekk waaw léegi nag vidéo la motif yi Bakary du ko envoyé de dalay woo appel vidéo tegal la nga gis appel vidéo la lay woo nga xool boo paree mu coupé la mais man xam naa ñi ma gis lu ma leen di wax dama ko maîtriser lépp loo xamante si nii wax naa leen ko xam naa ko mais man ah Bakary mooy moo yore situation bi appel bi nag ñëpp a ngi ci ñëpp a ngi ci appel bi waaw léegi wuyu ma. ah yow dama gannaaw yaa ngi may seetaan magu kiila la magu pël la magu pël ji damaa jum woo ko yee damaa jum woo la gannaaw man tudduma kenn de mi ngi nii di ma woo. damaa juum damaa juum damaa juum grand frère damaa juum maa def erreur maa ëppal te mën a duul mais Bakary daal moo yore ay situation moom Bakar Bakary moo yore ay situation duma kenn waxuma kenn mais abonné leen ci telegram bi mi ngi sama biir TikTok abonné leen ci telegram bi gars yi xam nga lu may bañ ngeen yóbbu ma naan Adama moo wax waxuma de waxuma waaw grand ana mu sax ma vocal ko grand ana grand bi grand xaaral ma vocal la grand maa ngi maa ngi lay déglu xoolal man appel 3 laa nekkoon léegi audio appel bi laa doon teg far juum loolu njëkk a génn mais ñun ñëpp a nekkoon ci appel bi yaa ngi dégg pour nga comprendre ne man pour nga bañ a yaakaar ne man dama ñëw pour yàq kii wala dara yàquma kenn comprendre nga fi ma waxee yow laa bëgg nga comprendre loolu waaw kii garaa yi da lay xam nga dañ yaakaar ne leneen na photo yi moom bu duggee xam naa ku nekk di nga xam nit photo yi bu duggee ku nekk di nga xam loo def euh, am na benn gelu mbër bu siiw gelu mbër bu siiw mbër ko jël di ko kat di ko vidéo mbër moo jël gelu moroomu mbëram bu siiw sax téye ko di ko kat nii duma ma junj nag mais photo yi daal dina dugg baa du ngeen wax aadama day yàq nit yàquma kenn de Bakary moo yor ay vidéo man ma duggoon ci appel bi ñëpp nekk ci bouse ko bag ñëpp Fadam sax mi ngi woon ci appel bi Fadam man bu ma amee numéro Bakary mii sax Fadam moo tax numéro Bakary mii bu ma ko amee bay wax ak moom nii faadam mbër mii moo tax pour wane ne leen ñiy yàq Sénégal ngi ci biir Sénégal rek waaw Fadam mbër bu ma amee numéro kii moo tax mais faadam ku baax la moom tamit ñaan na ne déet la ilaha illallah bu leen def loolu waaye la ilaha illallah faadam ma ne ko ah mbir mi de doy na waar yaa ngi dégg di leen fayal dugal ci biir appartement yi man lépp maa ngi moom appel yeeg yëpp man lépp lu ma leen di wax damaa direct lépp maa ngi moom nee na looloo naqari. Bekaay Mbaye woo ko ne ko man Bakaay man Alaaji Bekaay mbay maa lay ñaan maa lay ñaan di la ñaan ngekk nga bàyyi mu sedd naa la dugal bal tamba bi tey la waroon a doon xaw ma xaw ma démb kañ la woon bal bi duggoon na fa loolu lépp daana da dugg bal tamba affaire yooyu léegi Euh, Aziz Ndiaye tamit ay tamit ñaan ko Baye Ndiaye ñaan ko Bousse Kédioum moom doon na ñaan mais Bousse bu sañoon ñu kat nday affaire yi xam nga moom ñaanu seytaane lay ñaan déet déet waaye bàyyi loolu wax naa la nga bàyyi